بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام في أتم وأكرم صورهما على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم أما بعد موكي yi seen mbokk نانكو الحاج مالك سي بو الشيخ الحاج عبد العزيز سي رضي الله عنه موي يكتي اي كادو ديكو جيمي سي مبولم مبوك جوليت جي يو دك ريومي اك يو نيك بيتم ريو خانا كاج سخ ديكو جيمالي سي بوب بيب نيت كودي نيت رك تا يالا بيندلا noonu la ko yàlla bindé bëgge wax na ko ci alquran waxin wu rafet wo xamné ne su ko ñëpp déggandoo woon jàmm rek kay am ci aduna way li soob yàlla diversité bi moom mënul ñak di jital nak ci nuyo bi xalif général de Tijane Cheikh Seyid Aboubacar Mouhamadul Mansour sama mak sama kilifa sama serigne ma jàng lu bari ci mom alquran ci sama dans les années 40. yàlla dogal itam di nuyuwaale képp koo xam ne tey moo la jaboote ci njabootu maamam bi mu wuutu tey tooge palaasam ak i woy juram yu tedd yi dañ tàmbalee ko ci Seyd Aboubacar si nag du Cheikh El Hadj Malick radiyallahu anhu ak suñu wajuru tedd wa cheikh seyd mouhamadul mansour siiba cheikhul qawmi ak wajuram wu tedd bi nga xam ne moom la ñuy wax cheikh alxaaji abdul aziz ad dabbaax ak sama sëriñ bi nga xam ne wajuram la moom itam di rakku cheikh alxaaji abdul aziz dabbaax di cheikh alxaaji mouhamadul habib di caatu cheikhul xaaj malik ci njab doomam yu góor yi moom daal dafa mel ne dafa daf daf fi fekk lu ñu ko waajal ba pare rek ñu ne ko bisimillahi tàmbaleel loolu nag ndimbalal yàlla la mbaaxu yàlla la ay jagle la fa nga xam ne fa la magam ju tedd yemoon rek dale ko ci Cheikh Sayid Mouhamadul Moustapha Sy ñu naan ko Jamil romb ci magam turandoo baayam di doomu cheikhul xalifa ñu naan ko cheikh sayid mouhamadul mansour borom daara yi romb ci magam di léppam cheikh sayid ahmad attijani al maktoum romb ci magam soppeem xaritam wettalam ñu bokkoon ànd ànd bu rafet ci wéyal liggéeyu mag ñooñu ma tudd di seeni mag ñoom ñaar ba mu jóge fi diggante bi Cheikh sëyid Ahmed Sy di doomu Serigne Babacar Sy nekkoon héritier doonoon soppe ñëpp ci dal ga ci tey ga ci nduru Cheikhul Khalifa ci néewi wax jaar nag ci suñu rak di rak góor gi rak rakku sëriñ bi khalifa bi di soppeem ma xam ci seen diggante lu bari ci luma ma mën a 1949 bi son papa njëkkee dem mak ba ñibisi kaddu yam mu indi won ay xarit lañu won ay complice lañu won ñu tudde ko al cheikh al Hajj malik mu magge ma ñaari at yalna yàlla yok ñom ñep seeni leer motali sumbu khalifa bi ba ñëpp jàpp ci jappando ci bu mu sotte ak jàmm ñom ñoñu fi jóge itam yàlla sam seen njabot tay ñun ñoy suñu njabot di nuyu itam Cheikh sayyid Mouhamadul muntaka Mbakke di khalif général de Mouride mi nga xamne tay tey itam. li mu li mu tàmbalee rafet na te turam dafa dëppoo sax ak Cheikh Seyd Mouhamadul Muxtaar mi nga xam ne moo fi jóge bu toog palaasam al muxtaaru ci turu arab mooy ku ñu tànn ka al muntaqa ci turu arab ba tey mooy ci baatu arab mooy ku ñu tànn ka ndax kat li nga xam ne moo tax ñuy tàmbali ak yéen waxtaan bi ku di jullit rek ci nga bokk rawatina lool sax ma ne kuy nit ci nga bokk ndax yàlla nit a ko nit moo moo bind nit te Cheikhul Xaaji Malik radiyallahu anhu suñu maam ñun ñëpp ñu bokk jotaay bi daan na wax ne fu nit gisee nit na ko fonke ni mu fonke boppam wala mu wala mu raw ko ndax na ko wóor ne ki ko bind moom moo bind ki mu dajal moo xam muy jullit moo xam muy beneen religion bu mu bokk fonkal ndax yàlla bind am na nag ay limite yu la yàlla tracé rëdd la ko ne la bu ko dépassé ci jëflante bi fekk jëflante bi di tegu ci ngor di tegu ci diine bismillah ah xanaa la nitu yàlla ka waxoon bi ñuy wax ci wàllu shia ak sunnit chiit yi ak sunnit yi mu ne daal loola xew war na ma léegi junni at ak lu topp may sant yàlla mi nga xam ne dimbali na ma ba sama loxo takkul ca deret ya ca jot a tuuru fasuma yéene ni ba jamono yi sama làmmiñ di taq ci waxe waxtaan yooyu li ci ami bàkkar loolu mooy wane na rek ne jullit day wax lu baax te sëriñ Cheikh Tidiane si mas naa dégg mu ne kenn du ne sama sëriñ bu bon ba wala sama wala réewu bon ba su dee surtout sëriñ ndax yaa tànn nee na ku tànn du ne la ma tànn bon na xanaa kañ nga dem ba yëg ko te dootoo ci man dara ndax ngor ngor foñu na la mbaax foñu na la nga war a continuer tey ñaan nag te itam ci nit dafa war di ñaanal taalibeem waaye taalibe itam dafa war di ñaanal sëriñ mbokk yi nag li tax ñu bokk jotaay bi jàmm rek la مودي دافا ام دوم بو نيي واخ الحاج مختار نجاي دي سونو دومو بوب دي جوليت حقا نيو خام كو تي موم دي طالب الشيخ حقا نيو خام كو تي يالنا يالا نانغو سونو طالب كو دي كو جاخاسو كير مامام شيخ الحاج ماجد waye bayam haqqan nak te tey la ko Sidi Abdoul Aziz si Al Amin mo am ben projet bu reuy bo xam daf ko sumb jëme ko ci réew mi jëme ko ci mbokk yi te ñi bokk réew mi ñëpp ñi dëkk ci réew mi ñëpp bokk chrétien bi protestant bi jullit bi ci biir jullit bi qadir bi laayeen bi murit bi tijaan bi Cheikh El Hadj Abdoul Aziz radiyallahu anhu dimbali na lislaam lool gannaaw ba yàlla dimbalee lislaam ndax yàlla soxlawul ku ko dimbali yàlla ci boppam ci xam boppam xam mat ga xam man ga xam sañ-sañ ya moom yàllaay wax de nee na allahu ganiyun bi nafsihi an nafsihi man yàlla doylu naa doylu gog soxlaa lu ma yàlla dara xoolal wax boobu man yàlla soxlaalu ma yàlla dara fa la man yam fa la sañ-sañ yam fa la béel yam yàlla amul fu mu dalee amul fu mu yem subhanahu wa taala mu mu di moxtaar mi ma wax nag léegi moo am sumb bu rëy bu mu sumb xalaat ci réfléchir ci ba am ci conviction gannaaw ba mu ci waxtaan ak ay wéy juróom al amin bii fi bàyyi ko waxtaan na ceeg moom radiyallahu anhu bu doonoon borom xalaat moom Seydi Abdoul Aziz Al Amin doonoon borom gis-gis moom Seydi Abdoul Aziz Al Amin doonoon ku xam ku xammee ku xam ku xam diine diine doo ko lambatu da nga koy xam soo ko xamee rek yàlla dimbali la leeral sa xalaat leeral sa xol rafetal sa jikko yaatal terrain bi nga xam ci ngay liggéey te pàkku yàlla la ëttu yàlla la kenn adduna bi ñun ñëpp dañuy ñëw fekk ko fi di dem te adduna bi ñu nekk ni di dundandi man na fi desaat un million deux millions d'années yàlla temps existé wu te amu ko man ne la ñaari million ci année mën na dale tey tey jii jëm ci kanam yow ñëw nga li lay li la di dund yow soo fi jógee tamit yàlla des fi rek yàlla amul tey amul démb amul ëllëg yàlla léegi rek la am léegi gu sax nag li moom la ñuy tudde al aanu ad daim mu am nag benn canal bu mu bëgg a ubbi ubbee ndoo koog ñëpp incha allahu taala tudde ko al qanatul malikiya di chaîne boo xam ne ki ñu ko duppee moomale ko ko gannaaw yàlla moo di Cheikh Al Hadj Malick al qanatul malikiya ci wala ñu ne leeru Maodo te itam ñu waxtaan ci tuuti ci an nuur وإلير دال مويلير الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض لا شيء لا شيء أجل ما تنور جار النور أمنا الضوء أمنا الروح أمنا القمر أمنا الفؤاد أمنا اللب أمنا دفع باري بوش نكر لمو أمو تي ليرو يالله yàlla dogal nag ñu ñu di ko yëgal mbokk yépp wan leen ne daal seen canal bii dal leeru Maodo maanaam leeru ak Cheikhul Haj Malick fii ci Sénégal ak fundul Sénégal eh, tabaarakallahu Cheikh Al Haj Malick radiyallahu anhu léppam leer la ndax moom dafa dafa na jam dafa dafa jóg rek gis leeru yàlla ak yonent bi jéemul lam jéemul làmb loolam loolam nuurum minan nuuri ca seen taysir ba nuurum minan nuuri qad awdactahu xikama tafiidu faydan ala al axlaaqi yallaahu nuurun mubiinun ata nnuura almubiina li irshaadi al cibaadi jamian rabbi yallaahu yàlla nañ ko yàlla doole fayal nga xam ne nag eh, ña nga xam ne ñoo ko cee jàppale ci gannaaw bi nga xam ne waxtaan na ceeg ñaari baayam yi muy Sir Abdul Aziz Sy Al Amin te ba mu cee waxtaanee moom itam ca saasa la waxtaan ak papam xalifa bu tedd bi tey sëriñ Babacar Mouhamadul Mansour sëriñ bi jóge fi rakkam magam yooyu gannaaw bañ fi jógee sa rakkam yu jógee fi muy Sidi Ahmad ak Pape Malick Sy bu sëñ Babacar Maxtaar Konti nekk papam Serigne Babacar Mouhamadul Mansour Al Khalifa ba ci jotaay bii ñu toog di ko wax sax ci ndigalam lañ ko def ci ndigalam lañ ko def ñu yéen a dégg woy juróom Cheikh Al Hadji Abdoul Aziz Sy radiyallahu anhu ci gan mujj gàmmoom ci ci ci àdduna ca dernier bourdu ba nee na maa ngi leen di ñaan njaboot gi la doon waxal keroog ci zaw yëpp jàkk jaa ngi fees del ak dëkk boobu dara yëpp wutul képp koo xam ne am na looy def ci wàllu kër gi wala ci diina ji ci njaboot ji te ñëwuloo waxtaan ak sëriñ Babacar Mouhamadul Mansour mii ba mu joxee ci ndigal tooñ nga ma képp ku ñëw wax ak man fekk ci biir wax nga nax nga ma mel ne da nga wax ak moom tooñ nga ma na ngeen ni ñeen ñëpp yéen ñëpp na di dem ci sëriñ Babacar Mansour di jëli ndigal ci moom loolu loolu rafeta dëggu ga ca xolam ak ndeke déclaration bokkoon ci yu mujj yu mujj def ku ko mooy ñal yaa tooñ sa bopp te itam ñun ñëpp li ñu war a dimbalee sëriñ bi ñun ñëpp moo di topp ci ginnaawam déglu ko te xam ne làmbutuwul macha allah làmbutuwul lu mu def rek teg na ci ci xaw ci xam-xam ci xam ci xàmmee ak ràññaak ak xam-xam la ko teg eh, su ko defee nag maxtaar ñu dee la ñaanal di la bége xam nañu sa fas-fas xam nañu sa dëggu kàddu gi may waxe bi ma nee sëriñ Babacar ci ndigalam laa ko waxe la ñëpp dugg amul kenn ku ci sañ a génn boppam te njaboot gi yëpp nag alhamdulilah ñu ngi ci loxoom déggal ko sopp ko doyloo ko ndax ku am mesure la kuy segg ay kàddoom la ku dal la ku teey la bëggul daraja rus na woote xamu ko xamu ko ku niru Sëriñ Babacar mi ñu ko tudde ay jikko la sudul pir lam ca niru bari na ko de ku niru cheikhul xaaj mouhamadul mansour la ay jikko su jëlul lépp itam ak a niru ak a bari lam ko niru lam ko ca niru su ko defee nag ñuy ñaan ñëpp xam ne rek alqanal malikiya pour ñëpp la ñu may de passage ñu nuyu suñu doom Cheikh Omar Ndiaye ak xalifa Ndiaye magam di ay sëtu sëriñ Babacar Cheikh Oumar Ndiaye ak Cheikh Oumar Ndiaye bu bu Asfiya yaayam doomu sëriñ Babacar si la muy soxna Xadijatu si soxna Xadijatu si mu Serigne Babacar ak suñu yaay soxna bu Diagne di dëkkoon ri Thier te léegi muy ri Mamadou Assane Ndoye Serigne am na fa kër soxna Xadi moom moo leen jur ñoom itam seen taxawaay rafet lool ci biir ak ci biti ñu di ci bég di ci kontaan di ci di ci kontaan di gis seen doxalin ak seen liggéey ñu ngi ñaan itam yàlla tàppe na xol yëpp di nuyu mboolem ñi nga xam ne ñu ngi nekk ci média yi presse bi ci rajo yi di ñaan yàlla doole rafetal lépp Maxtaar jërëjëf na nga xam ne. loxo liggéey bi sa loxo maam Cheikh xaaj Hadj mu ngi ci biir te itam lu loxoom lu loxoom dugg nag ki ma ko seqal fekk warul xanaa di ko wóor te yow waruloo te ko wóor nga la mu ca bëgg yàlla dana ko ko defal ak ak ji mu àndal ci wàllu liggéey bi mbokk yi loolu mooy kàddu yi nga xam ne moom lañ doon yëkkati di tëje kàddu gi nag te tëjin bi ubbi la rek nag. ndax ba ñu dalee itam tudd ñu ko ba léegi nag ñu naan ñu tëjee kàddu gi mooy ñu ubbeetiwaat wala mooy ñu ubbi kàddu ñu kàddu gi fa ñu dale woon te moo di président de la république alxaaji Macky sàll ñu ngi ñaanal parti politique yëpp mbokk yi lii moo doon kàddu yi ñuy sant bu baax a baax nag comme Makhtar kebe mi nga xam ne mu ngi nii toog di wëllëre Makhtar di soppem di xaritam di léppam di nuyu bu di nuyu tam cheikh Sidi Ahmed si ñu bokk li ñu bokk di nuyu bu baaxa baax al sayyid babakar di taw Sidi abdul Aziz Al Amin di khalifa mom la tudde papam di nuyu mboolem njabootu Sidi abdul Aziz si ay rakku babakar di nuyu tam محمد المصطفى di ko ndokkeel ñoom ñëpp ñu ngi leen di ndokkeel ñu ngi ndokkeel Tiwaawoon gépp ñu ngi ndokkeel sëpp yëpp di ñaan yàlla dolli fi sutura dolli fi jàmm dolli fi teraanga eh, su ma sañoon nag su ma yàlla mayoon du ñàkk moos ma doxantu ñëw ba ca rajo ba fa mu nekk chaîne ba fa mu nekk canal ba fa mu nekk muy leeru Maodo wallahi wallahi leeru Maodo mos xal su ko defee mu ñëw tëbb ci leeru sama turandoo di suñu maam ñun ñëpp radiyallahu anhu maa ngi ñaanal ñëpp ay liggéey ñi ànd ak yow di liggéey ñëpp rekk liggéey ci dal liggéey ci teey te jàppale maxtaar ndax maxtaar kat nitu ñëpp la maxtaar njaay nitu ñëpp la soppee ñëpp la xaritu ñëpp la maa ngi dellu di sant di nuyu itam rakkam ji toog suñu rakk di caatu sëriñ alxaaji Habib si mooy sëriñ Babacar bi mu tudde bi mu tudde sëriñ Babacar ibnu Cheikh El Hadj Malick maa ngi nuyu njaboot gi fi toog ñëpp waaye yow ma kenn wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.